إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي ديكا جين ci suñu jataay bu jëkk bi ñuy tuddee keppaaruk weeru koor di waxtaani la nga xam ni mooy yenn bind la yu ñu jàpp ne kat ab jullit waru ko réere ci diineem nañu xam ne weeru koor ba ma san jot suñu yenent sallallahu alayhi wa sallam yàlla day wàcc ci moom jibril jibril ñëw di ko nafar ak moom alquran baba koor ga di jeex alquran boobu nga xam ne moo tënk suñu diine aada woo woon nañu it ci at yu xaw a takku ci weeru koor bu ma san ñëw ñu dajeeg yéen ca jàkka ja di leeral téere bi yàlla bi téere boobu nga xam ne moo ñuy leeralal suñu diine waaye tey yàlla dogal na lii mu dogal tey ba loolee mënuñu ko taxawee te it ñu gis ni lii di tafsir bi nañ ko daan defee nañ ko bàyyi fam yemoon rek bu ñu yàlla delloo jàkka ja ñu daal di cay delluwaat continuer fa ñu yemoon ñuy tànn ak yéen ci fanweeri fan yi ñu nar a dund ak yéen ci shahru ramadan bés bu nekk benn thème boo xam ni daan jàpp ni jullit bi mën na ko wittili ko ci bis buy nga xam ne moom lay dund di ca jàng diineem nànk-nànk di xamal ne tey ji mooy ajjuma ji jëkk ci shahru ramadan di fàttali it ko xabaar bi jotagul woon ngalawaay bu mu basé ci li ñuy wax ci commission nationale yi weer wi feeñ na Sénégal ci gox yu bari ca Louga ca Kaolack ak ci yeneen gox yu bari ci Sénégal loolee kon képp koo xam ne dëkk na ci réew mi bu doonte ne xëy nga woor falilahil hamdu su dee wooroo woon bu la xabaar yi dikkalee arrêteel foofee nga fas yéene yeggale bis bi ci koor bu la yàlla mayee koor gi jeex nga fay ko yàlla nañ ci yàlla dugal ci jàmm wërsëgal ñu dund ko ci jàmm ak ngërëmam génne ñu ci ci jàmm lay sababu waxtaan bi amit yéen ñépp ngeen xam ko ca mooy li yàlla wàcce ci ñun di musiba corona bi nga xam ni moom ci maanduteem ak xikmaam du def dara ci hasard dara waralu ko lu dul suñuy bakkaar yàlla nañu ko yëkkatilit ci njëggalam ak yërmandeem moom mi nga xam ne yërmande moo not meram mi ngi noonu mbokk julit wallahu aalam suñu waxtaan ak yéen tey weer wi ñu génn di chaabaan jëloon nañ ci ay bind yu bari lu aju ci koor doonte ne ne tey yàlla wërsëgal ni ñu fekke ko looloo taxoon ñu bëggoon a fàttalente ak yéen lenn ci li nga xam ne dafay aju ci teggin yiñ ko war a dunde loole yow mbokk jullit la ca jëkk te la ca gën a war mooy xamal ne koor gi ngay koor day mi ngi ànd ak loo xam ne moom musta deñ muy waxtu julli juróom te waxtu julli juróom yooyu day moo gën a màgg koor gi fuuf sax mboole mi boroom xam-xam dëppoo nañu ni ki weeru koor jot wóorul ku mel noonu ka julli jot julliwul moo ko yées su ko defee la nga war a jëkk ittewoo gën caa sàkku ngërëmal yàlla ci koor gi mooy fexe ba julli yépp nga koy def ca waxtu ya ca xamal ne gannaaw la nga xam ne mooy ngëm yàlla amul lenn loo xam ne nii ciy jëf yaakaar nañ ko ci jullit julli ca waxtu julli wa gannaaw loolu it ci koor googe nañ xam ne bokk na lu ca war lool mooy jéem a téye suñu lammiñ bokk lammiñ boobee gis nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki bu xëyee mboole mi cër dañ naan ko ah lammiñ ragalal yàlla ci ñun ñun kat ñi ngi bootu sa gannaaw soo jubee daañu jub waaye boo dëngee dañuy daal di dëng ngay xool wax ju baax sax ci la nga xam ne mooy zikri ya jéggulu ya tudd yàlla ya ñaanal sa bopp ñaanal mbokk julit waaye nga moytu sa kéemtaleel kàttan bépp wax boo xam ni waxu fen la mbokk suñu borom bëggul fen rawatina nag fen bi yées ci fen yi mooy feñal yàlla wala feñal yonent yàlla ne yàlla nee na ci yàlla waxul wala yonent yàlla nee na ci yonent yàlla waxul nañ moytu bakkaar bu bon bu yomb lool diggante ndey ak doom jëkkër ak jabar diggante ah ñu mën a doon muy bakkaarub jëw jëw day bonoon na naka jekk waaye ak a gën a bon ci weeru koor jëw nag mbokk jullit dafa yomb lool jege lool ndax la ca yonent bi alayhi salaam wax yonent bi alayhi salaam def na ay saxaabaam mu ndax yéen xam ngeen luy jëw ñu ne ko ah yàlla ak yonentam ñoo xam mu ne nga waxal sa mbokk jullit loo xam ne bu fi toogoon du ko neex saxaaba yi ne ko waaw bu dee li ñuy li ñuy wax moom mi ngi ci moom nag mu ne bu dee li muy wax mi ngi ci moom kon yéen a ngi koy jëw bu nekkul ci moom nag yéen a ngi koy dooral mbokk kon lan muy jëw mooy sa mbokk jullit def benn mbir mbir boobee doon mbir bu ñaaw waaye nag dëgg la moom moo ko def nga dem nag toog ak ñeneen di fa wax mbir ma te moom bu ko yëgoon du ko neex loolu mbokk moom mooy jëw islaam may na ca yenn rekk yoo xam ne dana am incha allah yeneen waxtaan yu ko mën a indi waaye daal ñu jéem a góorgóorlu suñu kemtalal kàttan ci lépp loo xam ne day jur aw jëw rawatina nag lii nga xam ne mooy rambaaj lan mooy rambaaj mooy ñaari nit a ngi nga dem wax ci seen diggante loo xam ne tax na diggante ba yàqu yonent bi alayhi salaam nee na loolu day jur mbëgalum bàmmeel ca loolu it dafay doon loo xam ne luy yàq diine doomu aadama bi ñu bàyyi ci xel bu baax ci loolee moom la ñuy wax it te jëf yi ngalawaay yow mi nga xam ne ab commerçant nga wala yow may jënd ca commerçant ba góor-góorlul sa kemtaleel kattan moytu di jéem a lekk sa alal mu mbokk jullit ci loo xam ne tegoo ko ci yoon loolee da ngay gis ne ci li gën a grave ca la bokk ca mooy yow di woor bàyyi la yàlla dagganaloon ba pare nag wëlbatiku nag moom di jël loo xam ne nii dafa xaraam ca la nga xam ne nii moom mooy say mbokk jullit nañu góor-góorlu sàmm suñu bët yi ngallawaayu mbokk jullit ni gémmiñ nga war a woore noonu la bët yi war a woore looloo tax yow woor ba pare nekk ca youtube ba nekk ca whatsapp ba di seetaan ay mbir yoo xam ne amunu la njëriñu àdduna amunu la njëriñu àllaaxira bal sax loo xam ne wóor na la ne lii ngay seetaan bëggoo koo respecté fekkele fi lii ngay seetaan xam nga ne ngërëmal yàlla nekku ca ngallaawaay jullit war nga ko moytu waxtu wu nekk waaye nag rawatina ci la nga xam ne mooy weeru koor gi sàmmal leen ma nopp yi mbokk la nga xam ne mooy nopp yi nañ moytu weeru koor bi yépp ñu koy wéttalee ay musique mbokk musique dafa xaram ci lislaam yonent bi alayhi salaam nee na balaa àdduna tukki lenn ci sama xeet daañ daganal sàngara daañ daganal lii nga xam ne mooy suwaa ca góor daañ daganal njaalo waaye daañ daganal musique musique boobee na doon arab lañ koy làkk musique boobee na doon alxuraan lañ cay wax ab sëriñ lañ cay tagg lum mën a doon mbokk jullit daganul nga jël sa temps yi roof ko say nopp yi ci musique bu bon bi rawatina nag la nga xam ne nii moom mooy ci lii di shahru ramadan naam mbokk jullit ci wàllu fàttali it dana ci bokk ñu fàttaliwaat leen la nga xam ne day yàqu koor mbokk xam leen ni lii di yàqu koor ba ca jiitu ca gën caa garaaw mooy la nga xam ne mooy ab sëy ba may wax sëy nag maa ngi ci jublu ki sëy ak soxnaam amaa ki sëy njaaloo ci bëccëgu weeru koor moom kooku ay mbiram moom paase na li ñuy bëgg a wax nii waaye ay woy dencante yoo xam ne dañoo ànd ci bëccëgu weeru koor mbokk loolu lu garaaw a garaaw la heure boo xamee ñi ni def nga ko wareef la ci yow nga goreel ab jaam jaam boobi ñuy goreel gisuñu ko tey ca la nga xam ne ni mooy sunu jamonoy tey jii bu dee ne amoo jaam boo goreel ba koor gi paase war ngaa tegale ñaari weer yoo xam ne danga koy woor heure boo ko daggee ci sa coobare yàqu na loole da ngay gis ni mooy la lislaam wax amma bu dee ne dem nga ba yow koor googee mënoo ko te yàlla mi la bind moo la gën a xam su boobaa lañ lay doog a may nga leel juróom benn fukki miskin loole mbokk kon ci musiba yu gën a garaaw la ñu bàyyi ci xel bu baax bokk na ci loolu nga fexe ba génne sa mëni yu fexe ba génne sa mëni yu loolee góor ak jigéen loolee day yàq koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nee na koor de mën la ñeel ndax doomu aadama day bàyyi lekkam ak naanam ak bànneexu sëyam ngir man kon képp koo xam ne yaa ngi foye sa bopp ba génne sa sa sa mëni yu xamal ne yow koor googee nekk na koor goo xam ne nii koor gu yàqu la bokkul ak nag ak ki nga xamee ni ni moom dafa demoon di nelaw far gént am loo xam ne nii génn na ci moom loolee moom nekkul loo xam ne nii yàqul la nga xam ne mooy kooram ñetteelu mbir bi yéen ñëpp xam ngeen ko mooy lekk ak naan képp koo xam ne dafa lekk wala mu naan kookee kooram yàqu na lu dul jamono bi muy lekk ka naan dafa fàtte woon na daa woor su boobaa day la ëpp ci boroom xam-xam yi nee nañu moom amul bàkkaar ci du fay bis ba waaye nag am na ca ñoo xam ne ca bokk na ca mazhab Maalik mooy bis boobee day amul bàkkaar ca lekk gam lekk waaye nag fokk mu fay bis ba loolee moom ak wuute la gu ca am tuuti ñeenteel ba it bokk na ca lépp loo xam ne doomu aadama bi bu ko jëlee mu remplacer ko lekk ak naan ca perfusion ya ak lu mel noonu nga xam ne dañ koy defal malade ya mu nekk ci palaasu lekk su boobaa da ngay gis loolu dafay nekk lu yàqu koor bokk na ci loolu mbokk jullit lu bari ca la borom xam-xam yi di wax mooy ki nga xam ne daa dem woccu wàcc goo xam ne moo ko provoqué su boobaa loolu dañ naan kooram dafay yàqu amma bu dee ne moom wàcc go kat da koo bett rek génn dem ci dara dugaatul su boobaa dañ naan koor googu moom baax na mu am it loo xam ni ngalawaay jigéen ñi ñu bàyyi ko xel bu baax mooy bis boo wooroon ba timis jot ba dara desul lu dul cinq minutes yàlla dogal sa règle génn xamal ne tuyaabay bisu koor googee am nga ko waaye nag bis ba fokk nga fay ko loolu it la ñuy wax ci ka nga xam ne deretu wasin da koo dikkal ci bisu koor loolee na gëm ni tuyaaba jam wooroon moom yàlla bindal na ko ko waaye nag fokk mu daal di fay la nga xam ne mooy bis boobee bokk jullit yi bokk na ci lu gën a màgg ci nu ñuy tegginoo ci weeru koor mooy ngalawaay delluwaat nag taqoog téereb yàlla bi téereb yàlla boobee nga xam ni yàlla subhanahu wa taala moo ko wàcce woon ca yonente yàlla ba muy téere bi gën a màgg bu yàlla wàcce ci kaw suuf muy jubale ci yoonu njub suñu boroom barkeel ko def ko leer goo xam ne leer gu màgg la malaaka bu màgg boobee di jibril wàcce ko ci diiru ñaar fukki at ak ñett suñu borom yàlla mi ngi koy tagg ne mooy chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan weeru koor day mi ngi nii tànn naa wàcce ci alquran ngalla waay mu nekk njubug nit ñi nekkit la nga xam ni mooy leeral ci njub di teqali dëgg ak fen bi may commencé waxtaan bi nee naa la weeru koor bu ma san jot suñu boroom dana yónni jibril alayhi salaam mu ñëw di nafar ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca la nga xamee ne nii moo jot a wàcc ca téere bi yàlla bi loolu guddi gu nekk la daan doon ba at mi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujjee jibril nafar na ak moom alquran ñaari yoon ñu commencé fatiha baqara ba naas jëlaat ko ñaari yoon mbokk alquran mi ngi nii mooy suñu borom tagg na ko inna haza alquran yahdi lillati hiya aqwam alquran ji mooy jubali ca la nga xam ne moo gën a jub ay jub ci sàkku ngërëmal yàlla jub ci ëllëg nga mën a tabbi aljanna looloo tax ngelawaay nañ baril di ko jàng bépp xarf boo xam ne jàng nga ko ca yàlla bindal na la fukki tuyaaba loolu nag kenn xamul noo xam ne nan la toll suñ ko mënoon a booleek la nga xam ne ni mooy xam maana ya nag loolu moo nekkoon jubluwaayu alquran te jubluwaayu alquran du ñu koy jàng rek jàng ja moom dana ñu jural tuyaaba waaye jubluwaayam mooy ñu xam lan lay firi ba mën koo jëfe looloo taxit falilahi alhamd am na ay site yoo xam ne boo fa duggee da nga mën a am lenn ci tafsirul quran mu lay leeralal naka ngay jëfe sa diine boo demoon lu mel ne xam sa diine point com wala nga dem xam islam point com da nga fa fekk ay tafsir yoo xam ne nii boromi xam-xam def nañ ko fa su boobaa da nga ca mën a sukkandikoo ba amul benn saar tey jii boo bëgg a xam maanaam lu dul boo demee ci sit boobee danga fekk ñu leeral ko fa ay leeral mbokk mi ngi noonu di mbir boo xam ne dañ ca war a bàyyi xel kon alxuraan mi ngi nii ñu war a taqoo ak moom di ko jàng ak xol boo xam ne xol bu teew la di ko jàng ak di ko settantal suñu koy jàng ñu ànd ak laab toog jël téere bi yàlla bi ànd ak suñu laab di heure bu ñu yegsee ci foo xam ne nii ak ñaan la ñu ñaan yàlla palaasu jéggalu ñu jéggalu yàlla palaasu mbugal ñu ñaan yàlla musal ñu ca góor-góorlu it bala ñoo jàng ñu muslu ci seytaani suñu kemtaleel kattan lii lépp mbokk da ngay gis ni ay sunna la yoo xam ne suñu delluwaatee ci li ñu tudde salafu saalix muy sahabatul kiram delluwaat ci borom xam-xam yu jëkk ya léeg-léeg ñu wax la nañ daan jëfe ci weeru koor loo xamee ne nii ah da nga naan ndax di doomu aadama sax mën na ko waaye itte bañ ko itte woo woon loolu moom moo tax looloo tax ba nga la waay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na kuy jàng alxuraan lu yées ñetti fan ay kaamil bi yépp nga tari ko ci lu matul ñetti ci lu matul ñetti fan yonent bi da daan tere loolu waaye boroom xam-xam ne it dolli nañ ca ne loolee bokkul ak palaasu ngéneel yi palaasu ngéneel yi waa ja nga xam ne nii dafa tombeek weeru koor ku mel noo ne baril gam cay baril a njàng ma ngir jublu ca màggal weeru koor ak sàkku cay tuyaaba loolee da ngay gis ne bokkul ci lañ ca tere moo tax aka bari lool ci ay borom xam-xam yu jiitu ñu ñuy wax ne bus bu nekk daanañ wàcce kaamil bi bus bu nekk daanañ wàcce kaamil bi bal dañ cey wax ko mel ni imam Shafii yàlla mayoon na ko suba dana wàcce kaamil guddi mu wàcce kaamil ba daana am lu jege juróom benn fukki kaamil yi muy wàcce ci weer wu nekk loolee nag lan moo ko waraloon mooy bu weeru koor ma san jot leneen lu dul farata dañ koy bàyyi sëgg ci téere bi yàlla bi te ci gàttal rek pour ngeen comprendre ni nit ñi tey sëgg ci seeni portable noonu la salafu saalix daan sëgg ci seeni kaamil looloo tax ñu ci daan wàcce lu bari ndax yéen ñépp yéen a ma gën a xam ne temps bi ngeen di def ci portable wallahi bu doon temps bu tol noonu la ñuy def ci kaamil téere borom bi da ngeen gis lu yéeme yéeme ci lu ngeen am ci ay tuyaaba ca tuyaaba yooyee mbokk jullit képp ko dem àllaaxira dana rëccu boo nekkee ñitti àjjana sax da nga réccu wallahi heure ya ma defoon ca ca portable ba whatsapp baag youtube baag xabaar yu dul jeex ay waaye ak a neexoon ma wëlbati ko woon ko def ko ci téere bi yàlla bi heure boo demee ba jàkkaarloog pay yi yàllay pay ña nga xam ne ñoom dañoo sëggoon ci téere bi yàlla bi di ko jàng guddi di ko jàng bëccëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaari nit ñi dong la ab jullit war a ñee kenn ki mooy yàlla da ko wërsëgal alal mu koy dépense guddi di ko dépense bëccëg ab jullit gis ko ne ay waay ak a neexoon ma am li diw am ndax ngir mot oto bu rafet déedéet kër gu rafet déedéet takk jongam yu rafet déedéet ak a neexoon ma am li diw am bay def lu mel ni li muy def ci ay ndimbal ak i sarax jëme ko ci jaamu yàlla yi ak a neexoon ma am loolu ba man nit di def loolu ñaareel bi mooy ki yàlla may alquran mu koy taxawe guddi di ko taxawe bëccëg bu ko defee ka xamul loolu moom naan ak a neexoon ma amoon xam-xam bi diw am ci téere bi yàlla bi ba koy mën a taxawee comme ni mu koy taxawee lii mbokk kon ku nekk ci ñun war nay bàyyi xel lu jëm ci xadis boobee doonte ne mbokk jullit téere bi yàlla bi lang ca man rek def ko ca yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki mokkal alquran di ko jàng-jàng bu correct ma a safaratil kiraamil barara ku mel noonu day daan yëkkati ay darajaam ba mu yegg ca darajay malaaka ya nga xam ne ñoom la yàlla tànn teral leen muccal leen amma kiy jàng alquran fekk daa jafe ci moom ma nga téem téere bi naan qul a'uuzu bi ila axiri yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku mel noonu ñaari pay la ko yàllay fay dana ko fay fayu xarf bu mu jàng am fukki tuyaaba fay ko it payug coono bi muy am ngir génne xarf yooyee loolee tax mbokk julit alxuraan la nga ca mën a kës néew néew nag bari sëgg ca rek sëgg ca tuyaaba dong dong la lay jural yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na julit bi nga xame ñi nii dafay nekk julit waaye nag doo ko gis mu jàng alquran ku mel noonu day daa mel ni fruit boo xamee ne nii neex na waaye nag amul benn xet mu joxe ci misaal lu mel ne tàndarma waaye mu ne julit bi nga xam ne nag moom dafay boole di jàng alquran ku mel noonu day dafay yor la nga xamee ne nii mooy xet gu neex dafa mel ni ku yor fruit boo xam ne xet ga daa neex lool caf ka ga neex lool loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk jàng téere bi yàlla boobee moo waral mboolem àdduna bi nga gis guddi nit ñi di taxawee di jàng téere bu yàlla bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégal ñu ci ni nañ jàng téere bi yàlla bi ndax yowmal qiyaama day dana ñëw di ràmm ña nga xame ne nii ñoom ñoo ko doon taxawee loolee di yaakaar bu rëy boo xam ne jullit waru ko sàggane mu ko xamal na it téereb yàlla boobee saar ba ca gën a màgg mooy faatixatul kitaab war ngaa fexe moom ba man koo mokkal muy benn war ngaa fexe ba xam la muy firi muy ñaar ngalawaay mbokk jullit li nga xam ne fukki yoon ak juróom ñaar danga taxaw wax ko ak sa boroom ca la gën a néew ah yéeme na lool jullit dund ba am trente ans quarante ans cinquante ans jëm kaw ca xamul loolu lan lay firi kon war ngaa fexe mokkal faatiha war ngaa fexe xam faatiha li muy firi loolee mbokk wax naa la sànq ci ay moyens yoo xam ne boo ca jaaroon man koo xam ndax faatiha boo jullee ca tariwoo ko baaxul xamal na it am na benn saar bu gàtt muy qul huwa allahu ahad loolu it war ngaa xam lu muy firi ca baril di ko tari lool yonent bi alayhi salaam nee na boo ci tari rek am nga yoolu ko tari alxuraan buñ ko xaajoon ñetti xaaj ko tari benn ba ki jàng benn qul huwallahu ahad am na yool boobee muy ceeru alxuraan yonent bi alayhi salaam bégal ñu ci it ne amul ku koy jàngi fukki yoon lu dul ñu tabaxal ko kër ca biir aljanna omar na ko ah kon de dañ baril di ko jàng mu ne lu ngeen bari am jàng yàlla leen gën a bari kattan ca tabaxal leen ay kër loolee ñu bàyyi ci xel bu baax ngandaaw yéen ndaw ñi it góorgóorlu leen ci suratul baqara yonent bi alayhi salaam nee na suratul baqara day mi ngi nii wattu ko barke lay doon ci dundug doomu aadama bi mënoon koo wattu defoo ko pertaanga bu rëy la la jural ma ne rek xale bi mënoon a jàng ba am doctorat sàgge na ko ba mu loolu rëcc ko yow xale bi mën a këru suratul baqara yi nga bañ bañoon koo def perte nga perte bu rëy donte ne yonent bi alayhi salaam nee na caaxaankat ya ak saay saay sa duñ ko man rawatina njabar yu bon yooyu muy albatala noonu la ñuy war a góorgóorloo baril di jàng téere borom bi yépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam bégal nañu ne yowmal qiyaama su doomu aadama bi taxawee ci kanamu yàlla yàlla di ko àtte boo geesoo di gis ndey du gis baay du gis sëriñ du gis avocat lan lay gis ay jëfam suuratul baqara day génn suuratu ali imran génn ñu taxaw ci kanamu borom bi ne ko ay yàlla kii baal ko ndax ku daan taxawe sab téere la di ñaan yàlla ba yàlla subhanahu wa taala baal la loole loolu it kon ngeen góorgóorlu yéen ndaw ñi ñaari saar yooyu it képp koo xam ne mën na di ko wattu su dee mënoo ko wattu it nga bari lool loo xam ne nii danga koy danga koy jàng rawatina ci kër yi amul benn kër bu ñuy jàng suratul baqara lu dul seytaane moom buy visite kër yi day tëb kër googee seytaane du dugg ci kër goo xam ne dañu fay jàng suratul baqara loolee di mbir yoo xam ne kon ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu bàyyi ko xel kemtalal kàttanam naka noonu it mbokku julit ñu bàyyi xel li ñuy tuddee qul a'uuzu bi rabbil falaq ak qul a'uuzu bi rabbin naas yàgg ngeen a dégg ci borom xam-xam yi leen di fàttali ñaari saar yooyu day yonent bi aleyhi salaam bëggoon na ko lool daan ko dénkaane lool daana ko tari ci julli witre su mas daana dénkaane ne waxtu woo jullee tari ko muy qul huwallahu ahad qul udul falaq qul udul binnaas daana wax ne ki ka tari ñetti yoon ci suba tari ko ñetti yoon ca guddi amul lenn loo xam ne nii dana ko lor loolu it moo tax ñu ko doon digle rawatina ci la nga xam ne mooy aju ci corona bi mbokk kon alxuraan mi ngi noonu doon ay musluwaay doon ay ñaan waaye nag xamal la ca gën a màgg mooy alxuraan ñu daal di koy gëm daal di koy jëfe képp koo xam ne nii gëm na ko jëfe ko suñu borom nee na danaa ko teggil tiisi àdduna ak tiisi àllaaxira teggil ko toroxtaange àdduna ak toroxtaange àllaaxira waaye képp koo xam ne alxuraan jooju yegsi na ci moom mu won ko gannaaw suñu borom nee na danaa ko may dund gu xat ci àdduna même bu doon milliardaire wala président te yoomal qiyaama danaa ko dekkal fekk daa gumba su ko defee mu naan yàlla lu tax nga may dekkal ca man at di maa ngi gumba ca àdduna dama doon gis suñu borom na ko waa mi ngi noonu sama téere dalaa dikkaloon nga weddi ko naka noonu itamit sama téere dalaa dikkaloon nga fàtte ko naka noonu itamit noonu laa lay fàtte sa bisub tey bi mbokk jullit lii de ab laytaay la boo xam ne mooy suñu dars bu jëkk bu aju ci weeru koor bu màgg bi nga xam ni ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi ko ubbee ci suñuy kër yal nañu yàlla wërsëgal ñu tëjee ko ci suñuy biir jàkka ñépp ña fa daan daje teew fa kenn na bañ ca manqué ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne lu mu sàmm nga mucc yal na yàlla sàmm ñu ci weeru koor bi ba lépp luñ ciy wax ba lépp luñ ciy jëf dëppoo ci ak ngërëmam yal nañu yàlla musal ñu bokk ci ñi ciy tooñ waaye yal nañu yàlla boole ñu bokk ci ña cay jëriñaate suñu mbokk jullit ak nuñ leen mën a jëriñe ci suñuy alal ci suñuy xalaat ci suñu di leen ñaanal fu ñu ko yëgewul woon loolee mbokk jullit lu yomb yàlla la su ko defee kon lii mooy suñu bind bu jëkk bu ñu fi yàlla dajalewaatee ñu yegg ak yéen ci beneen bind ci lii nga xam ne ni dañ koo tuddee keppaarug weeru koor lu jiitu loolu yàlla dañu fi dajalewaat ëllëg yal nañu sàmm may ñu aafiya jéggalal ñu way dawlu yi mboolem njaboot gi tasaaru ci kaw suuf yal na yàlla sàmm leen ca defal ñu aafiya fi dunya wal axira mbokk jullit mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته